mbokk yi nuy seetaan ci seen site bi ñuy wax Tanime TV tey dellu siwaat nañ ci bis bi nga xam ne dañ koy waajal muy màggalug Cheikh Abdoul Khadir Mbacké euh, ñu war koo amal mu war a tolloog la vingt et ci mois bi ñu nekk tolloog ñetti fan ci weeru tamxarit bi deux mille vingt trois ñuy ñaan yàlla yóbbu nu ceeg jàmm yiwu nu ci daan am ak tawféex yi nu ci daan sunu borom dajaleel nu ko yëpp mbooleel nu ko xëppal nu ko Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem njaboot ga ñuy ñaanal moom Cheikh mun Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko moom mi nga xam ne mooy xalifa général de Mouride waaye di ñaanal xalifa Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Serigne Cheikh Amadou Mbacke di ñaan yàlla sàmm ko te wéral ko tey nag ñu dalal kenn ci njabootug Cheikh Abdoul Khadir mu di Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Modou moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke ñu fas yéene waxtaane jëmu ju tedd jooju mooy kan fàttaliku nda sikkëri saalihiina tansilu rahma euh, kon sëñ bi ginnaaw bu la joxe nga nuyoo rek ñu bëggoon a xam kan mooy Cheikh Abdoul Khadir Mbacke waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp te jiital ci nuyoo bi kilifa ak yoon wi mu sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér di ko ñaanal ndam ci liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Tuubaa tey beral nuyoo sunu waajur sëriñ Cheikh Mbàkke mu Cheikh Abdul Xaadir ak mboolem ñi mbokkal Cheikh Abdul Xaadir ñëpp di la nuyu itam yow sëriñ Saliou Niang ak mboolem ñi nga àndal di leen jaajëfal bu baax ci jéego yi jërëjëf mm-hmm. sëriñ bi ginnaaw laaj bi nu lay taale woon rek ginnaaw bu nu nuyoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan ci réew mi ak ci bitim réew euh, ñu bëggoon a xam waat kan mooy Cheikh abdul Khadir Mbacke ci gane àddunaam ci ay njàngam ak ci aw melow mi tamit loonu ci mën a fàttali bisimilah. waaw jërëjëf li nga laaj moom sawar nañ ci bu baax ci tontu ci ndax Cheikh Abdoul Khadir ibnu Cheikhul Khadim sëñ Tuubaa moom kenn du ko présenté ndax moom. ñëpp xam nañ ko ñu bari xam nañ ko boobu wala ñu ëpp xam nañ ko mooy waajuram soxna Aminta Bousso yit mooy waajuram wu jigéen soxna Aminta Bousso nag sëñ Bousso bi mi nga xam ne moo bokk ak soxna Jaara lépp mooy waajuram nga xam ne kon sëñ bi ku tedd ki ma nijaayama mook sëñ Fallou mbakki soxna Aminta it maamam maam Balaay saa juraat ba tey maamam it Ibrahima Awa Niang mu maama xaram moo ko juraat nga xam ne Cheikh Abdou Khadir daal dem na ñetti yoon ci Serigne Touba ci num ci bokkee ah, yàlla dogal na nag bi mu ganee àdduna bañ war koo jox aw tur maam Thierno Birahim la sunu borom la sunu Cheikhul Khadim yebal ne ko demal jox ko aw tur maa ngi lay masal ci ngëneelu gan gi nag mooy yow mi koy jox aw tur bi ngay dem ba ba ngay dellusi képp koo fi dajeel yàlla jégal na ko ku la gis te gisoo ko yàlla jégal na ko koo gis te gisu la it yàlla jégal na ko wax nañ ne maam Cerno lim defaroon ci ay gàtt ngir bég ci gan gi ak gën a lekk ko mujj na kilifa gu mag moo ci mujj jàpp nag ne ko lii daal moom ëpp na ngir bég gum bég ak ngëneel gu gan gi indaale ndax njéggalu yàlla moom kenn ëppul kenn lu ko ëpp Cheikh Abdoul Khadir nag <coughs> moom la indaale muy <coughs> njéggal googu ba matee dal jàng it dañ koy yóbbu ndaam ku ñu wax sëñ Mokhtar Sourang moom la ko sëñ ndaam booleel sëñ Tuubaa dalal ko mu dellu si loxeel Cheikh sëñ Ndaam Abdou Rahman ma ngi leen boole woon nag ku ñu wax Mor Gueye moo leen yoroon ca ndaam di leen jàngal ci ndigalu suñ ndaam ba mu demee ba njàng mi xaw a mel ne lu xaw a xaw a euh, yeex ci la ko suñ mbàkk bu su jël nag mboole kook suñ Birahim njaay mu mottalee fa alxuraan bind kaamil jàng al euh, xam-xame ci suñ mat dem ba jàngee ba noppi sëñ asan bu sayit jàngal na ko xam-xam yi diine yi baaxoo jàng fii yëpp ci doomi soxna lu ci nekk dem na ci njobbaxtal la ba noppi nag soog a jëf nag soog a soog a soog a jëm nag ci jëfe lim jàng nga xam ne li muy indaale ak njëgal lépp téewul dafa teg tànkam ci fa ko yàlla teglu nga xam daal boo bëggoon a xam kan mooy Cheikh Abdoul Khadr da wax ne kaamil bu doon ndox ci kaw suuf la ndax mboolem melo yi nga xam ne sunu borom tagg na ci gaaña ci nun war a meloo lépp boo ko xoolee mi ngi ci moom nga xam daal boo ko doon xool dangay wax ne aji gëm yàlla la muumin la gëm yàlla nag day tënku ci <coughs> juróom-benni ponk ko tënk muy da ngay yàlla ne moom rekk mooy buur gëm malaayka yi gëm yonante yi gëm téere yi gëm dogal yi gëm bis penc ba muy juróom-benn yëf yoo xam ne moo tënk ngëm yooyu yëpp nag gëmoon na ko niñ ko war a gëmee ba noppi nag muslim la woon mooy kuy jëfe li ngëm gi laaj te sallallahu alayhi wa sallam nee na woon ab jullit mooy ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci ay loxoom mbaa làmmiñam si Abdul Xaadir nag moo ma defal moo gën a yomb moo ma def kon moom yàlla dimbali na ko ba sàmmante sàmm na làmmiñam sàmm nay loxoom ba mus cee lor nit ba mu doonee jullit ba noppi nag muhsin la woon mooy kuy aj rafetal ndax euh, imaan islaam ihsaan mooy mën a ànd nit ki doon jullit bu mat sëkk boo xam ne royukaay ngay war a doon ci ci yëpp ba mu doonee loolu ba noppi nag taqiyi la woon nit ku ragal yàlla te ragal yàlla boo ko doon tënk da ngay wax ne mooy jëf ndigal yi bàyyi tere yi moom nag yàlla dogal na musta dox ci fu ñuy tere daa am boo xam ne dane benn waaye man de sun borom de sant naa ko bu baax ndax lu ma ko laaj rek mu defal ma ko kooku ne ko ne ko day loolu day li ko def mooy li muy digle kenn dala caa mënut mm-hmm. te mosulaa seen fu muy tere mu ne ko sikk de kon kooku taqiya la woon te it nit ku rafet jikko la woon te jikko rafet jikko balaa mat fokk nit ki takkaay yooyu ñetti yëf ku la tooñ danga koy baal képp ko toog ku toog seet siwu la nga dem seeti ko képp koo xam ne it daf lay xañ nga di ko jox sëñ Abdou Khadir nag fayuk tooñ bokkutoon ci jikkoom nit ku mën a jéggale la bokk na ci it ku toog seetsiwu ko faaw ma dem seetu ko ndax wax na daana wax ne man bokkuma ci ñi nga xam ne ku dikk ñu dikk ku dikkul ñu toog man du def loolu man ku dikk ma dikk ku dikkul ma dikk bokk na ci it ay jikkoom muy nit ku bëgg sëñ Tuubaa la woon ba tax na mboolem taal boo xam ne sëñ Tuubaa taal na ko wala bépp barab boo xam ne sëñ bi dem na fa noote woon na ko ba nga xam ne da ko da ko da ko saxaloon di fa dem di ko siyaare ji te yàlla dimbalee na ko muy ku nos ak dundam ndax dund gi da koo séddale am na ci loo xam ne yàlla la ko jagleel am na loo xam ne yonent bi la ko jagleel am na loo xam ne bindee fi yàlla yi la ko jagleel am na loo xam ne yaramu boppam la ko jagleel am na loo xam ne njabootu boppam la ko jagleel lim moomale yàlla muy waxtu juróom xajulu ci kenn bañ na ba bu farata jotee boo ko dee wax soxla sax du la diglu na ñëpp dem jàkka ja lay wax te waxtu yëpp it ci jàkka ji la koy jullee lenn ci naafile nawaafile dana ko def ci ci jàkka ji waaye nag kërama ci biir këram moo ci ëpp ndax loolu moo gën a dëppoog sunna mhm. dégg nga li nga xam ne yonent bi la ko jag loolu mooy jul gi yor-yor gi. Mhm. kooku moom da ko saxloon dakk ba nga xam ne bu jotee danaan ñu dem ci liggéey ba. Mhm. bokk na ci euh, li euh, nawaafil yi nga xam ne yonent bi la ko jagleel mooy waxtu juróom yi dana def ñaar rakkaay suba yor yor moom xamul lu mu ci daan julli waaye lu mu saxaloon la mhm. dana defit ñeent rakkaa njëkk tusbaar ñeent rakkaa gannaaw takk tusbaar ñeent njëkk tàkkusaan ñaar gannaaw timis ak fukki rakkaa ñett gannaaw kee lii moom da ko saxaloon dakk ba nga xam ne ku ko xam da nga ko xam ne lii programme moom sax googu itam ak way la àndal mooy sallallahu alayhi wa sallam daf ne jëf yëpp ja ca gën mooy ja ca gën a sax doonte néew na ba tax na ñett ñooñu nga xam dañoo ëppaloon ci lañ sukkandikoon ba ne lañ dañuy yokk seenu jaamu yàlla ndax ne ko yonent bi defe daal ñoom jàpp nañ ne maris naa mën a def lu ëpp lii kenn ki daan ni man de bu mu wooree duma dog ki ci des daan ni man dey duma ma denc soxna ki ci des ne day fanaane julli bañ ko ko waxee dafa dafa mer ba mu feeñ ci kanam gi moom yonent bi sallallahu ba mu leen woowee bañ dikki mën leen yéen a wax nangam ñu ne waaw mën leen man de maa leen gën a ragal yàlla fuuf gën leen koo xam waaye man damay wor di dog di denc soxna di julli noppalu te képp koo xam ne bañ nga sama sunna bokkoo ci man kon ñooñu dañoo ëppal si Abdul Xaadir nag bokk na ci ay mbiram digg doomu ndaxam mépp mbir digg doomu ca gën ka yées ak ka ëppal ku nekkook moyam moo tax mbir mbir mu ne da teg ci da teg ci na ko yàlla bëgge mhm. bu dee li nga xam ne da koo jagleel fii tam mhm. bu dee suba gi dana teel a génn mhm. nekk ak nit ñi nekk ak nit ñi ci maslaak ñoom ba tosbaar dem julli te maslaak nit ñi sallallahu alayhi wasallam dañ ne dañ maa digal ma maslaak nit ñi niñ ma digalee taxawee farata moom xadis boobu la jël gunge ko maslaak nit ñi euh, ba tey bu bu lee ba noppi dana dallu ab diir euh, diir boobu itam yaramu boppam la ko may ndax yaram bi dafa am àq ci yow te dox bëccëg bokkul ci mbiram noonu lay nekke bu dalloo ba euh, tàkkusaan ji bëgg a jot mu génn waajal tàkkusaan ji bu jullee ba noppi génnaa ci bi ci nit ñi maslaa ak ñoom maslaa ñoom ba timis mu delluwaat ci jàkk ji julli ba ba gannaaw timis daa toog ab diir soog a woon ak njabootu kër gi ñenn gone yi mu ñaanal leen ñenn ñi daan lañ daan ñu séddale lu mel ne tàngal ak hmm. loolu nga xam ko ne da koy bëgg ci yooyu jamono hmm. te te sallallahu alayhi wasallam dafa dafa wax ne woon am na àjjana joo xam ne ñi daan bégal gone yi képp ñoo ca duggee hmm. xëy na xadis boobu moom la tax moom la fab ngir am ci tuyaaba jooju ba gannaaw gee bu gannaaw gee nag dana toog ab diir ba gudd gi xaw a dugg mu soog a nag ñaanal nit ñi soog a fatu te bu fatoo itam li ëpp ak naafilaam fukki raak ak ñett la woon mm-hmm. te loolu boo demee ci siirat donc da nga dégg sëñ Moussa Ka di ko ca wax mm-hmm. ak naafilaam fukki raak ak ñaar la woon abadan mm-hmm. ëppul yeesul ëppul taxawaay ba yàgg yàlla euh, bu bu bu am na ko ko jege woon ko ne ma bu dee jamono yi tàngoor trois heures lay jóg bu dee jamono yi sedd bu dee jamono sedd trois heures euh, deux heures lay bu dee jamono tàngoor trois heures lay jóg xam kon diggante boobu te mhm. koo xam ne bala ngaa fatu daanaka onze heures jot mhm, mhm. daanaka nelaw xaju fi noonu la ko yàlla binde woon ci nu mu daan dundale euh, li li nose woon ak dundam te it amoon na programme it lépp lu mu la defloo li fekk gisut ku ko euh, waxoo ko lu dañ yow la koy defloo ba faaw mooy lu la xas sedd daal du ko nangu bokk na ci ak mën a maslaa mboolem koo xam ne Euh, njëmbatu sëñ Tuubaa la ko tàmbalee ci. Mm-hmm. Cheikh Mamadul Moustapha. Mm-hmm. ku seqoon na moom kóllëre la ba ci baxdaat gee am na ñu wax ne moo ko joxoon. Mm-hmm. mooy foofu daqaar ga njëkkoon a ne. ñu di ko wax baxdaat gu njëkk ga. xëy na jamono yi sëñ Abdoulaye lañ lañ gi gii nag. waaye ci loxol sëñ Moustapha la jaaroon. moo tax bi mu dikkee tundoo daf ne moom du naan mukk di bàyyi waa tundoo di teewoo bi faaw dafay dem. ndax nag mi ngi kon mi ngi jokk kóllëre ga ko suñu mbir mu sois seddoon ci mhm. boobee noonu la ko doxalee ci diggam ak sëriñ Fallou mhm. mboolem takk ndeer bi suñu Fallou am mhm. ñëpp moo leen tudd kon loolu ko doyuloo wut doo ko def loo loolu noonu la seq ak suñ baara suñ Abdou Assis suñ Abo suñ Amet ak ak ñu dul ñoom sax ci waa ka suñ baara ku ci nekk seq na ak ñoom kóllëre ba tudde nga ko doom noonu la sedd seq ak sëñ Moustapha Bachir moom seen diggante ko ne xam na ko mm-hmm. fekk na ko fu ne fekk na ko tiib fekk na ko poroxaan mm-hmm. fekk na ko njaareem lu ci nekk jokk kóllëre ga mu amoon ak sëñ Basiru mu mm-hmm. waral loola ba ci sëñ Muntaxa mi ba ci Abdou Akim ku ci ne seq na ak yow loo xam ne da nga jàpp ne yow moom sama doom ji ko daan wax kooku sama doom nga xam bu ko séenee mbégte mi àndal ngir moom it lu mu seqoon ak sëñ Abdoulaye te xam naa bu wér. Mm-hmm. kóllëre guñ seqoon ay lettre yu ñu daan bindante. Mm-hmm. sëñ Abdou Khadre di ko ci woon ak cofeelam. Mm-hmm. diggam ak sëñ Abdou Lahad. noonu la ko yàlla leerale woon ba nga xam ne day mel ne ëllëre ko gopp. bi ñuy misaal ne ñoom ñaar seenub liggéey noonu lañ ko seqe woon. noonu la ndox diggam ak sëñ Saliou. ba ci gorob gor bi nga xam ne biñ koy kero bañ bañ koy denc. ña ca jóge woon muy muy potu euh, muy muy fi ñu wax yar guy mm-hmm. fekk naa sëñ Mbàkke Faajama ne ko sëñ Saliou day ma ngay bëgg lool ci liggéey ba nga ko santaane lool mu ne ko waaw moom de bëggee rek sëñ Tuubaa bëgg na allah <laughs> loolu moom loolu moom ko mm-hmm. ci saal bu njëkk boobu mm-hmm. fa ko doon waxee diggam ak sëñ son bi moom seq nañ ko lëre moom it goo xam ne euh, na ñaari weer yum toog te demul seete ko yendu fa ba ngoon mu wàññi am na koo xam ne sax nee na sëñ son bi day eh, am na loo xam ne moom dong laa ko mën a waxal. Mm-hmm. moom it am na loo xam ne man dong la ko mën a wax. kon seen diggante sori woon na. Mm-hmm. dégg mag sëñ Mortala it. Mm-hmm. sëñ Mortala may na ko ci boppam ba nga xam ne képp kum am. sëñ Abdou Khadre kon kooku moom it doyloo ko ëpp na. ba ñuy ba ba ñëw fii ci wetu jumaa ji sax. daf ne man sama kër na sa na sa sëñ nga xam ne natt bee ko xaajale waaye genn kër la woon daanaka. Mm-hmm, mm-hmm. kon loolu kooku euh, te sëñ seex may. Mm-hmm. mos na maa wax ne ma seen diggante yàgg gum yàgg. nee na ko sëñ Abdou na ko ba ñu nekk ndaam de. sëñ Mourtala mos sa jëfandiku mukk te te woowum ba ma ñëw. <laughs> nga xam ne seen day bëggante gu yàgg goo xam ne def defub yàlla. léegi nag euh, noonu la àndee woon ak njabootu sëñ Tuubaa noonu la ko doxale nag ba ci mhm. mm, euh, sët yi euh, rakk yi waa mbokki sëñ Tuubaa yi li mhm. ko tàmbalee waa kër sëñ Mor Jaara mhm. ba ci sëñ Masamba a ci kenn koo xam ne mbaa genn kër ci kër yi ma lim yoo xam ne boo fa demee doo fekk ay jiili jiili taaw ba da koy tudde ko ci topp tudde ko nga xam ne ku ci nekk daal ëmbal na ko yéene joo xam ne ak cofeel koo xam ne lim jëflanteeg yow moo waral mu demee noonu moom daal buñ ko doon tënk da xam ne kon moom ni niñ bëgg ab jullit mel ni mm, mm, mm. bëgg murid saadeex mel ni sëñ Abdou Khadir la ci loola barkalla jërëjëf sëñ Fallou ku mbokk yi nii soog a dab ñu ngi dalal sëñ Fallou Mbacke moom sëñ Modou Abdou Khadir ñuy waxtaane Cheikh Abdou Khadir Mbacke ngir waajal màgg nga xam ne moo nekk ci sunu kanam eh, te mu tënkal nu alaaxa yi waxal nañu sëriñ bi nga xam ne ni la meloon eh, ni mu séddale waxtu yi waxtu wu ci nekk daanaka ak jëf yi mu doon jëf lu ci nekk da ko tënkoon ci ay alxuraan wala addisu bi loolu la ko tënke woon ba dikk ci mbokkam yi sëñ kii ngir may li ne ma sëñ Saaliw bi muy bëgg wirdul maxoos sax dafa bi mu koy laaj sëñ Mbàkke bu sa dana ko su manoon a jaare ci sëñ Abdou Khadir ginnaaw bi sax am na ko wax ne tamit Abdou Khadir daan def bu jullee tabaski wala korite dina fa dem ba bi mu toogee xilaafa day yebal sëñ Cheikh May mu koy dem mën nga cee dellusiwaat waaw ñoom seen xalaaxa moom ko takk ci rafet Mm-hmm. ak ci jub mm-hmm. ak akuk dëggu mm-hmm. te yàlla kese tax nga xam ne amul dara lu ca rax foo ko takk weesu na ndax euh, li ci ëpp ba ci kore googu ngay wax sax yaakaar naa lool ne oto Sëñ Saaliw moo ko yóbbu keroog ca ca jullikaay ba nga xam daan jaar si foofa ñu ànd dem ci jullikaay ba waaye moom da bëggoon te yàlla tax rek tey tool tool yi siñ seel yi sëñ seel am yi ëpp siñ siñ Abdou Khadre daana fa dem dafa yendu ji hmm. ba tax na siñ siñ euh, am na ku mu ko duppee koo xam ne hmm. siñ Abdou Khadre la ko duppee hmm. te loolu cofeel ak ñoom ñàkk gi ñàkk doomi bàyyi lu mat a lu mat a yéeme waa Sëñ Tuubaa la ñoom amuñ amuñ doomi bàyyi ku ci nekk rek sa morom da laa gënal <laughs> sëñ Seex Basiru bi mas naa ko dégg mu nettali ne ba ci addiye ji nga xam ne bi sëñ Abdou Khadre jóge sax addiye yi sëñ Saaliw mujj joxe bi ñu koy dem waa xam nga loolu itam sëñ Saaliw dafa am na koo xam ne nee na daf ko ne mm-hmm. waa kër sëñ waaye yi addiye jii ma yëkkati di leen ko jox mm-hmm. gënuñ ma cee yey mm-hmm. te it soxla naa ko waaye bëgg mu sakkan nag moo tax ma di ko def ci ñoom waaw gis nga loolu it la ko ci yàlla fayee. Mm-hmm. sëñ Tuba moom mooy tool boo xam ne. Mm-hmm. loo ci def gis ko. Mm-hmm. sëñ Tuba loo ko defal gis ko loo ko defit gis ko. loo ko def gis ko ah tubarkalla <laughs> macha allah jërëjëf eh, sëñ bi ñu ngi sant baaba eh, te ñu ngi fàttali ki tamit ne toolam yi fi nekk mujj sëñ seex Basir mi la ko mujj a gorloo di caatum sëñ Abdou Khadir xanaa am na toolam yu nekkoon ci wetu puut yoo xamante ni sëñ seex Bas mi moo ko doon gor. lool loolu mooy mooy daa duggaat ci biir relation bi. maa lax rek <laughs> ndax ci sëñ Modou la tàmbale woon. waaw sëñ Modou bi mu dencee sëñ bi bi mu koy bi mu koy yëgal si sëñ Abdou Khadir. moo ko moo njëkk jox boppam sëñ Saliou ci ci xilaafam. ndax bi mu ko ko waxee rek la jébbalu ci moom. allah te it kenn ku ne seer na ba mu fi mujj nee na képp fa ngeen jëm. Uh-huh. na waaye na ngeen yóbbaale ne sëñ Saliou sama sëriñ. allah kon loolu diggante yooyu moom. Uh-huh. moom daanaka <laughs> buñ ci buñ ci duggoon émission bi day jeex. <laughs> day jeex <laughs> waaye tubaarkalla daal ay roykaay daal lañ. jërëjëf jërëjëf ñu ngi ciy teetal jataay bi côté boobu sëñ bi ñu bëggoon a xam uh, ci uh, sëñ Modou Mamoun mi moom sëñ Fallou dama mës a dégg mu ne sëñ Abdou Khadre dafa amoon programme ba bu dee génn. am na bu dee solee dàll sàngam am na fu mu jëm bu solee bot yi da nga naa <laughs> armeel ya bu solee jàlla bi sàngam bu nekkee ci biir kër gi demut fenn am na mbubu yëre yu muy sol couleur boobu ndax mën nga noo fàttali foofu ci programme bi woon foofu waaw moom moom dundam gépp gépp da ko mm-hmm. benn par benn mm-hmm. bu dee euh, bu dee mbubb yi muy sol ci biir kër gi waa ñaari ñetti abdu lay doon ñetti mbubb mm-hmm. ñetti abdu li ñuy wax ñetti abdu mooy xaftaan lay doon bu ànd ak Euh, tayit programme am na programme ba buy julli farata fokk ah. day kaalaw mm-hmm. muy julli farata sol mbaxana kenn mës koo dégg ah. ndax daane saxaaba yi bu ñu masaane julli farata dañuy kaalaw bu ñuy naafeelu sol mbaxana te gannaaw gee kenn mës koo gis kaala itam mm-hmm. loolu moom ku commencé gis na ma ko wax <laughs> gannaaw gee mm. saa bu jullee gee ba noppi mm. day jël kaala gi teg ko da ko kippi ni def mbaxana mm-hmm. noonu la koy tegee jël mbaxana la yooyu am bën bën yi mm-hmm. gannaaw gee moom lay sol ak benn may luus nga xam ne nga xam ne fi ne boo julli woon gee sa kër mm-hmm. ne da koy siyaara ji faw boo demee mm-hmm. danga fekk mu sol may luus bu bulo ak sarbet bu muy teg ci ci ci ci mbagg yi ak mbaxana mu weex lii mooy programme guddeem nga xam ne moom maa laa yéen la tayit bu tayit bu saxal na itam saa bu saa bu jëfandikoo gannaaw gee ba noppi dana bagg jàng sóoratu baax da ko saxaloon moom itam gannaaw ge te dañoo wax ne sortu waaxee boo ko ko bëgg wërsëg mm-hmm. boo ko saxalee gannaaw ge yàlla dana la musal ci ñàkk moom nag xaw ma lu yil lay mu di ko def mm-hmm. waaye moom lu mu saxaloon la tey jëllaa bi tam buy buy julli ji àjjuma faw bu weex lay sol Sëñ mm-hmm. Abdou Khadre jëllaa bi bu dee siyaare ji mën naa sol nag bu xonq bi bu sokolaa la woon bu dee dem armée li mën naa sol bu xonq bu xonq ba bu giri bi ñetti jàllaabe yooyu daal ràññee na woon ràññee woon naa ko ci lu muy lu muy sol moom waaye comme julli ajjuma lu weex moo gën a dëppoog sunna mhm. moom lañ gën a soppit mhm. moo tax buy dem julli buy dem jumaa ja mhm. faw jëllaa bu weex bi lay sol waaw moom nag dafa yàlla daf ko dimbale daal ba lépp lu muy def fexe bam sax te loolu seentu bi moo ko jëf ji yee ca gën mooy yee gën a sax doonte néew na moom nag day def lu mu xas ŋàbb du laal suuf ba ci ab jaaroo am na sax lu ma jël muy roy gi muy roy yonent bi sallallahu alayhi mhm. ba ci njëkk mooy ni muy kaalawoo mhm. nga xam ne day kaalawoo as cat génn ca gannaaw mhm. ba ci jaaro bi ni mu koy takk di wëlbati njoŋ li soppoon na ay jaaro yuñ def njoŋ te daana ko sol tey làq njoñ la ci biir ci biir tenqam la yàlla sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan solee ab jaaro Cheikh Abdou Khadir noonu lay takkee jaaro nga xam ne bu ko takkee xaqiiqa bi day féetee biir tenq li <laughs> daana jëfandikoo it ñetti nga xam ne fi muy jëfandikoo. Hmm. munoo ko xàmmee ngir néewug lekk. su fi yanke piir la woon itam. Hmm. nga xam ne nga xam ne sunni sunni gi da ko teg ci kaw waaye hmm. li ñuy wax sufiyanke dëgg dëgg ndax ak lekkam bëriwul li muy jëfandiku lu néew a la li muy naan noonu li muy nelaw noonu te du dem fu amul farata loolu mooy ponki tasawuf sumtun wa juuxun tawilun baxdahu saharun wa xoslatun an suyuxin bi li saaraat kon moom mbooleem daal model hmm. boo xam ne da boo ko jëloon teg ko ne benn par benn hmm. mboolem lu muy jëf hmm. luñ mën a roy la tey boo fekkoon doonul dara ci lim doon ci sëñ bi it ku melawoo noonu faaw ni ku baax ngay doon tubarkàlla <laughs> kon sëñ bi jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax baax gërëm léegi ñu ñëw ci sëñ Modou mi nga xam ne moo sosoon màggal gi ci turandoo yi sosoon ko waaye lim ci wane ci ndigalul sëñ Saliou dafa doon wax ne man du ma taalibe boo xamante ni damay laaj ndigal loo xam bu dëppook sama bànneex ma jël su dëppoowul ma jël màggal gi tamit ni mu ko tàmbalee jili yi ñoo ko tàmbale waaye mosu cee jëf dara te waxtaanewu ceeg sëñ Saaliw sëñ Moodu mooy kan ba sëñ Abdou Khadre daa li ñuy nettali buñ ko masee wax ku baax mu ne mel na ni Moodu saama loolu mën a fàttali sëñ Moodu wax ci sa bàyyi daa xaw a jafe waaye nag nañ wax ci sëñ ah, Moodu ma daan liggéeyal sëñ Abdou Khadre alhamdulilah moom Mouhamadul Mahmoud la ko la ko Cheikh Abdou Khadre tudde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. sëñ Mbàkke Bousso it moo ko tudd mhm. kero bi su tudd ba it defe naa sëñ sëñ Masamba ñëw na ca mm-hmm. sëñ bu Buso ñëw na ca mm-hmm. uh, bam mu ba dal alxuraan ñu jox ko ku ñu wax sëñ baar Ñaŋ mm-hmm. sëñ Baara Ñaŋ sëñ bu Buso nijaay lenqee ma moo ko sëñ Abdu Xaadir seen waajur yi jigéen ñoo bokk benn baay maam la ci moom it ndax mook soxna Fat Ñaŋ mi jur soxna maam Assa eh, mi jur maam yaay soxna maam Assa ñoo bokk lépp kon maama ma baaya moo ko jàngal alxuraan ba mu a wattu alxuraan ci lu yées fukki at. Mhm. ba yàlla àttee mu noppi it. Mhm. suñu asan buso mhm. moo ko jàngal xam-xam. ba téere xam-xam yu baree baree bari bari. jàng na ko ci diggante euh, Touba gi ak Njaareem génn ko suñ Modou. suñ Fallum suñ Basiiru sax mi ngi may wax nu euh, suñ Modou bëggee woon xam-xam. ak ak nu ci farloo nag ak nu ko yàlla maye ak dégg. nga xam ne moom ñim jamonoonteel ku ci nekk xam na xam-xamam. Mhm. ak ku dégg loxatul arabiya ak mën caa bind waaye loolu lépp ba mu ko defee ba noppi nag. Mhm. defu taalibe da koo gën loon. Mhm. mu ñëw ci wetu Sëñ Abdu Xaadir ci féete ko mboolem fu doom war a féete waajur fu taalibe war a féete ab sëriñam. sëñ Modou féete woon na fa ndax tool yi moo ko yoroon. ba mu bustaan moo fa féete woon ba mu nekkee baxdaatin moo doonoon jëwriñu dong yi ku ci nekk boo demee ba sab liggéey war a war a soppiku moo lay indi ci sëñ bi mm-hmm. mu ñaanal la nga dem soppib liggéey bu saka ji noppee itam buñ génn ci àq yàlla ji mm-hmm. li ci des sëñ Abdou Khadre la koy jox noonu la nekkee woon ak moom doon për përgam bu dëgër sax boo xam ne mm-hmm. yàlla rek a xam na mu doon doxe ba loolu jàllee nag yàlla may ko am xel may ko it ful la joo xam ne kenn yëbu ko hmm. ba lii nga wax léegi naan baax na ne moodu Sow moom hmm. gis naa leetar boo xam ne moo gën a daar loola hmm. ndax sëñ Abdou Lahad la ko bindoon moom la sëñ Abdou Khadir bindoon leetar ba ne ko maa lay xamal yow maa ngi lay nuyu fa nuyoo mën a yem ban boole kook teraanga ak ko wormaal yow xarit bi soppe bi mbokk muñ gërëm mi Cheikh Abdoul Ahad doom xalifat Cheikhul Khadim te di la xamal ne doom ji gën a baax muy Mouhamadul Mahmoud. Mhm. xamal na ma yéene ju rafet ji nga am ci tabax jàkkay Baxdaad mhm. ca anam ya nga ko bëgg a defee ma mhm. bég ca lool fa mbég mën a yem yàlla na la yàlla fay aw yow kon seeral na ko ne ibnul abar mooy doom ji gën a baax loolu moom mbindum Sëñ Abdu Xaadir du lu ñuy sos ak a wax léegi nag ba loolu amee nag dafa séq moom jëfi mbaax muy musta bëgg dara musta wut dara mustawa daraja woo musta daraja woo dara mm-hmm. fu sëñ Abdou Khadir bëgg daal mm-hmm. moo di bëggam fu ko sëñ Abdou Khadir yem looy fa la yem yàlla dogal nag màggal gi nga xam ne nag moo ko sos 1995 mm-hmm. ci la ci njëkk waxtaan ak Serigne Saliou ndax jiitu woon na ko ñu di ko wax màggalu jiili jiili yi waaye nag nee na ba jiili yi bëggee eh, màggal ne dañoo bëgg a def ak màggal seen turandoo Mm-hmm. leneen leen fokk moom bala cee def dara da cee waxtaan ak sëñ Saaliw mm-hmm. sëñ Saaliw nag ne ko nag am nga ci ndigal te it sant naa la ko mm-hmm. daal di yabal ay donga yu boppam ñu ñëw ubbi bis bi noonee la ko jàppoo jàppoo ko jàppoo ko ba 2003 yàlla dogal mu wàcc ab liggéey daana wax ne am naa fóotkat bu mën a fóot bu tax fa la yàgg def da toog ci barab jële fa gàkk boo xam ne ñu ko doon dindi dagg ci ni mën a xaj na ci loolu bokk na ci ay ndénkaanam. am na bisit muy tàngal war bi comme noonu mu daan def. Hmm. benn waay jékki-jékki daal ni daal di bërxal daal man di ñii dof yi def man ma amoon ko jox sëñ bi hmm. bi daal daal di noppi ca wax tontu wut ba ñu xelaataay ba mu ba timis jël. Hmm. ba mu dem ba timis jël. mu taxaw ci bunt bi jël lu yàgg te jàpp ni sax moom. ba ñu ubbee yem ci moom mën leen toog leen. ñu toog ñu leen ñu ne leen hmm. bëgg waxtaan ak yéen. dañoo wax ne moom meew ñoo yem. Hmm. booyegut ci dara. Hmm. dof boobu du ñëwoon ci takkusaan ndax xaw ma la ko sàdd ak fu ko sàdd. ndax xaw kañ la koy ba. boo ko kenn roy ci yéen. ndax juróomee la ponk lislaam la bëgg moom. te kenn mënut a am ndax daal ndax boo ko bëggee da ngay wut meew moo dara lay ndox du ko rax ndax lu ko rax yàq. ko ba ngoy ba tuut la ci kaw nga ko def di ba am ndax. ndax boobee nag mooy xaqiiqa mais moom mooy sariya kenn mënut a am xaqiiqa ju leer nañ itam moom sariya ju yor bu noppi daane ak daanu kat du taxaw ban waaye ku ànd ku nit boo daanu ñu xaw gannaaw boo mujjee ci rëqal dam kan bu mu xote daane ab daanu kat man naa fekk garab bi gën a kare mu war rek yëpp yëpp mm-hmm. gën a xaj na ci te dañoo wax ne al xutbu laa yakunu maj suub mm-hmm. xutbu saman du nekk maj suub mm-hmm. maj suub mooy ku laagu ci yàlla ku laagoon nag kenn topp ndoolu ko ci nam yi doxee waaye yow mi dara jur dangaa war a wàcc si jën nag yàlla jur masalla jërëjëf mbokk yi li moo doonoon seen jataay bi ñu leen jóg leen ci màggalu seen Abdou Khadre deux mille vingt trois ñu di ko amal seen Fallou Mbacke ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla ñu ci yàlla defal jëriñu yàlla ñu yàlla defal jégg ak topp ñu ngi koy siyaare bu baax baax di leen jox daje ci beneen jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Tanim TV